am internaute de Carbos TV comme niñ leen ko waxee woon sànq rek ñu ngi nii toog ki nga xam ne moom mooy Soxna Khady Ba ngir rek mu daal di ñuy indil ay leeral ca la xewoon Mbour ndax moom kat jegeñaale waa ji la xam na waa ji bu baax gannaaw bañ la nuyoo di la ziar ñu bàyyi la nga nuyoog am internaute de Carbos TV. waaw ah, maa ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam. di leen nuyu di rafetlu déplacement bi ngeen def ñëw fi avant tout loolu maa ngi jaale waa Mbour yëpp di jaale ñi nga xam ne ñoo si ñàkk seen bakkan. di leen masawu baax baax di masawu seeni jur di nuyu suñu xalifa bi mu taxaw yàlla yàggal ko fi ma may ko fanu gudd a wér gu bon Aliou nag ñu ñëw ci détails yi xale bu góor bi sa lan la woon ak foo ko xamee. waaw bala ñuy dugg ci détail dañuy dugg ma moom ci nu ñu xamante parce que man dama jóge woon fii dem cees parce que Thiès sama nijaay ma bokkal bokk sama yaay ndey ak baay moo fa nekk soxnaam dafi ñëw parce que man Dakar laa nekkoon di ñaw fa di fa jàng di fa di fa jàng métier daal côté ci benn centre. après nag bu ma demee ba foofu noonu arrêté. sam papa ne ma dégg nga ñibbi fii Touba nga ñu toog sa wetu yaay. bi mu fi toogee nag ba mu yàgg. ci la ma sama jabaru nijaay mi nekk Thiès ne ma tey ngaa ñëw. Thiès ma am ku ma la fa boole ci benn réseau ngay liggéey foofu. moo gën toogaay bi ngay toog fi amul benn njariñ. léegi ma ne ko waaw baax na léegi nag may wutal foofu en attendant léegi nag bi ma wutalee foofu liggéey ñu dem a dem a dem. ba ci ay jamono mu waat ma ne ma tee ngaa amoon naa foofu liggéey mm-hmm. ma daal fay dem mm-hmm. ma fa demee ma nekk fa quelque jours mën naa wax ni trois jour laa fa nekk rek xamante jëmm ji di Aliou ki def jëf ji mm-hmm. ci xamante bi nag ni ñu xamante man ak moom parce que man un jour boobu dama nekkoon sama kër yaay xëy di ànd ak sama jabaru yaay bi di liggéeyi bi ñu xëyee parce que ñun nasuru lañ dëkk nasuru te Aliou arrêt bi muy taxaw mi ngi nekk deux voies yi nekk ngent ci arrêt caali bi nekk foofu foofu la lay taxaw léegi nag bi ma àndee sama jabaru nijaay ba ñëw ba ci tali bi ñu jéggi tali bi bi ma ñëwee ma taxaw ci ci peg ci kaw trottoir bi di ko séen bi ma yegsee mu ne ma moom sax waxu moom sax njëkkumaa yem ci moom damaa am ci ñaar ma njëkk a yem après ñooñu ne ma foo jëm man de man de service des mines laa jëm bi ñu defaree permis ak kii voilà foofu laa jëm mu daan ne ma ñooñu ne ma ñaata nga yore man de man de 300 laa yore ñu ne foofu 400 lañ fa demee wala 500. Aliou daan ne ma après ñooñu ne ma loolu demu fa de 400 moo fay dem soo yorul loolu nga xam ne tey doo fa dem war nga dugg ci tataay ba yëg fa nga doog a jëlaat beneen tata muy ñaar mooy fii mënoo mm-hmm. fay 300 pour nga dem fa léegi nag ma daan ne xaama waaxu ba ci voiture yi ma jël fa voiture dem ba marché ma doog a jëlaat tata pour dem foofu noonu place bi après dama jig ba wax naa ak ñaar mm-hmm. après moom ci la jéggi ñaari pas mm-hmm. ci la ci la ma dab ak motoom dama soxna si fan nga jëm ma ne ko man maa ngi jëm service des mines mu ne ma ñaata nga yore ma ne ko yow loolu jëru nga ma ko laaj parce que bi may waxante grand yaa ngi taxaw kon yow juru nga may laaj yore man ni ma wax naa ko ñu man ma yow métti nga de ma ne ko noonu du cadre métti parce que ma ne ko parce que ñee dégg nga bi ma waxante ak kon wax kon yow juru nga ma koy laajaat man ma léegi waxal loo yore ndax man dama la jàppee comme sama rakk bu jigéen ma ne ko man 300 laa yor mën foo jëm ma expliqué ko service des ma yéegal bu ñu yéegee mu dawal tuuti mu ne ma après mu daal dawal tuuti man ma yéen jigéen da ngeen a bëgg lu yomb surtout yéen ñi nga xam ne yéen ma ne ko noonu non man de du ma aaw sax du cadre loolu sax man xam nga rek man ko yéen góor yen yéen a nangu te joxe xaalis bi mm-hmm. loolu tax ñun ñu bëgg lu yomb mama déedéet yéen da ngeen yomb après mu ne naa ma affaire aaw affaire ñaar ma ne ko déedéet man sax du ma aaw man si célibataire la maa mm-hmm. mu naa ah, mu ne célibataire bëgg lu yomb mm-hmm. léegi ma daan ne ko du cadre sax daawul bëgg la man ko dama xaa yoru mais man musuma waxaale sax kii suñu ma waxee ma waxee ñaari yoon su fekkee bu morom su ma waxee fixé prix damay xam ne loolu lañ fay demee damay yéeg jël dem man non yéen da ngeen a bëgg lu yomb ñu dawal mu dawal tuuti ba yegg arrêt Maam Bamba bi nekk Thiès mm-hmm. léegi xaw ma nag ku ko woo kan la jigéen la daal mm-hmm. mu ne eng maam may tuuti ma droite wuyu ki may woo mm-hmm. mu wuyu ko pare mu commencé wax mu ne ñi yéen yéen nii laay waxte ci yéen aaw yi di yéen yéen yéen jigéen da ngeen a bëgg lu yomb ma ne ko ah mu ne sama soxna moo ma doon dafa am lu ma doon laaj ma ne ko lu mu la doon laaj mu ne waaw ah, mu ne yéen jigéen man sax dama bëgg a takk ma ne ko ah mu ne ma ma ne ko ah ko yow de yow nga xam ne ko ah ma ne ko yow de xaw ma man ñëw ma ko ñu dema dema dem ba presque ñu ngi bëgg ci seen place bi waaj a yegg ma yow lan ki nga àndaloon kan la ma ne ko nijaay la mais ñoo bokk fu ñu jëm mais mënuñoo dugg ñu ñaar jakarta parce que ñun ñaar jakarta bi attanuñu léegi après moom jël na jakarta dem léegi bu ñu yeggee ma tee nga maa jox sa numéro ma ne ko sama loo koy doyee mu ne ma yow mu ma la ngaa loo doy sama numéro ko loo koy doyee mu ne maa yow nga nga jógee fële te yàgg ngaa taxaw fi di waxaale Jakarta 300 kas pour 300 pour mu yóbbu la ma yaakaar ne fa nga dëkk te man côté boobu laay ñibbi damaa bëgg pour bu ëllëgee buñ bu ëllëgee su fekkee ne amoo Jakarta bu la jëlee seen place di fa indi di la indi fii pour man nga abonné ci man ma di la indi ma ni ko man wax dëgg yàlla man du wan maa jël abonnement Jakarta ki may liggéey moo jël maa Jakarta waaye nag man ko da ngay bàyyi su demee yow yaa ma jox sa numéro mais man du ma la jox sama numéro léegi après mu daal ne ma non non yow jox ma sa numéro rek ndax yéen jigéen ñi mën ngeen jël numéro góor te doo leen ko woo ci laa ne ko nii amul problème dégg nga léegi yow bàyyi léegi man après man ma jox la sama numéro léegi ma jox ko numéro ñu def noonu ñu dem ba ay boori midi ay midi mu woo ma ne ma est-ce que wax nga ak maire bi lay liggéey maire bi ngay liggéeyal wax nga ko ba xam ba yow. am nga waaw abonnement Jakarta ma ne ko waaw ma ne ko waxaguma ko ko parce que pour l'instant dama ne ci liggéey te bala ma ko ko wax faaw ñu dem ba mën a wàcc bu ñu wàccee pare bañ réglé xaalis ba pare ba ba ki koy versé versé ko après ma pare ma doo ko ko am na borom Jakarta bu dëkk suñu yóbbu ko ne dafa bëggoon su fekkee ne mën na fi ngeen waxtaan pour mu jël ko abonnement mu di ma yóbbu di ma indi maire bi ne ma man pareeguma ci loolu am na keneen ku may waxal te kooku déggooguñu te kooku fii laa am ndax ku ma xamul du ma ko jël di la di ko teg tax yow dañ ma laa denk yaa ngi dégg sa umpaañ moom mu yëkkati ne ma téyal ma diw pour mu liggéeyal la kon du ma jël di jël n'importe quoi jakarta di la ko jox mu di la yóbbu léegi bu ñu defee loolu ñu def noonu def noonu def noonu ba ca ëllëg sa ba ma woo après man maa ko woo sax ne ko daal léegi sama patron ne nga bàyyi ko am na keneen ku muy waxal mun naa noonu la dem mun naa mu ne kon baax na ñu toog ay ba ca ëllëg sa mu daa may woo téléphone boobu dama liggéey ba wàcc mu liggéey wàcc guddi may wàcc sangu daal di sangu daal di julli daal di reer dem bay tëdd moo ma téléphone man xamoon numéro bi ci laa xool sama téléphone man man numéro bi xaw ma ko kii kan la war a doon après xool ko ma ne non xaama wuy ko rek mais dafa guddi ma ko wuyoo mu nekk mu ne ko waa kookan la mu ne yow xamoo ko la yow ma ne ko noonu xaw ma ko su ma ko xamoon du ma la ko laaj mu ne man la borom jakarta bi lu yóbbuwoon démb mu ko ah mu ko lan la yow heure bi nga yow lan mu ne ma man de xat dafa am lu bëgg a wax ma ne ko lan nga ma bëgg a wax lan la mu ne ma waaw man daal di bu ma la gisee ba léegi damaa amul jàmm mun maa fexe tëdd naa tëdd mun maa nelaw mun ko loolu nan la mën a nekk yow nan ngay gisee nit xamoo ko xamaanoo ko ci même pas ngeen xamante tey ci suba sa nga ne yow kooku mën na laa teree nelaw loolu mbëggeel googu mën naa gaaw na di sëñ bi mu ma noonu waaye mbëggeel moo mel ndax bi ma la gisee damaa foog ne bi ngay jéggi tali bi di ñëw ci man ngay njëkk ma ne ko noonu mënta demee noonu après bi ñu defee loolu mu ma ne ko waa baax na dégg naa li nga wax mais bàyyi ba suba instant bi dafa gudd man suba damay teel a xëy liggéey mu ne suba bu sa abonnement bi yi xëy ñëw nag ma woo fajar am na élève bi mooy yóbbu muy su ma yóbbu élève ma ñëw jël si la ma ne ko non non bi abonné na fee pare léegi loolu du ma ko def léegi ñu dem mu daal ma ci topp na topp ma ci ma ci ba ma xam ne daal topp na ma ci ak lu baax li ma defal parce que ñee dama leen waxaale dama waxaale ak ñoom ma du yóbbee ci loolu moom mu ñu yóbbee ma ci loolu léegi mu topp ma ci di wax di wax ma ne ko man nag mu ne ko ma ne ko dama lay waxal ba ma dugg ci yow parce que man damaa Touba laa dëkk falaa juddoo falaa yeroo fii dama fi ñëw liggéey si sama jabar nu yaay moom fi indil ma ko nag ku may dugg day nekk lu wóor wax la règlement yi nga xam ne moom la ñuy àndee ndax bëri na ci góor ñu naan la dama laa bëgg fekk bëgguñu la lañ la bëgg a foowee te man dama samay rakk bàyyi sama yaay ak samay mbokk bëgguma mukk ñëw du liggéey ñu jàpp damay li fekk maa ngi fi taxawaal comme que nag wax nga ma lool ma ne ko ah, ma ne ko nag damay may ma waxtaan sama njëgënaay mu daan ne ma waa baax na biñ defee loolu ñu ànd ànd ànd ma koy nangul ñuy génn léegi nag benn jour ma daal di koy woolu ma daa koy woolu parce que toogaan na lu yàgg nag ñu doog cee gisee benn jour mu daal di ñëw place ba mu ñëw place bi may liggéey fi may indi woon mu ñëw ma présenté ko ki may liggéey ndax man ak benn femme ñoo fa nekkoon di liggéey yaa ngi dégg après bu mu ñëwee ma ne ko diw ma kooku daal maanaam lu yendoon ci moom moom parce que confiance bi mo dafa damaa dem ci dëkk ba xaw ma fi kenn ma ko ca place ba mu nekk ñëw ci dëkk bu ma xamul te tamit fa fekkee ko xam faaw ma laaj ko yan règlement ma fi am ndax tamit dëkk loo fa xam-xam-xam ka fa juddoo yaroo laa ko ne diw ma ne ko xam ma ne ko man de borom jakarta mu fi indi keroog fii waaju xees joo ne ko neen daf maa nopp maa xadi moytul ndax fii bëri na góor ñu dañ laa bëgg fekk bëgguñu la ay fowukaay rek lañ la bëggee mun ko waa ji daal ni ma gis dafa sëree ndax waa ji diir bañ xaw ni génnee léegi mën na presque mi ngi bëgg a mën fukki fan te chaque fois chaque fois daf may woo ay 5 heures du ma jugal julli loolu sax gën na gën na tax daal ma gën ko daal gën a veillé ci moom te waa nuroo moo am caaxaan léegi nag benn jour mu may woo téléphone ne ma xaar ma ñëw te dama bëgg a ñëw ndékkee seen place ba mu ñëwee mu ñëw fekk moom ma toog ma ne ko yow loo bëgg après ma laaj ko ma ne ko yow looy ndékkee mu ne ma defaral ma benn sandwich ma ne ko ah mu ne ma waaw ma defaral ko ma daa ko présenté sama xarit bi ki may liggéey ma ne ko kii de la kooku xool ko xool ko daana ne ko yow sëñ bi na nga def ñu nuyoonte mu ne ko yow noo tudd man sax waxuma woon Aliou laa tudd dina ma Kayta laa tudd Kayta mais information yëpp dinaa ci ñëw ni ma xamee ne Aliou la tudd yooyu yëpp léegi nag ab mi defee noonu sama xarit ma mu leen présenté ñoom ñaar kooku daal koy xool xool ne ma ah baax na daa koy nuyoonte moom ma defal ko ndékki mu ndékki daal dem ñu continuer noonu continuer noonu ba benn jour ma ne ko diw mu naa ma ne ko dama laa soxla mu daal di ñëw ñu toog ñu ngi toogoon booy dem HLM route de dakaar ci ban jaax lay nekk foofu ñu toog foofu di waxtaan ma ne ko diw mu naa ma ne ko ñu waxtaan parce que yow ma ko ñu ngi génn taman maa ngi ci danger bu mag koo xam ne maa ngi génn ak moom xaw ma fu mu dëkk soit xaw ma ay mbokkam te yow lu bon bon xamee nga ma sama jabaru nijaay ak place bi may liggéeyee te loolu ma ëllëg ba fa amee problème wala nga am problème man mën nañ ma cee boole fekk sama yoon nekku ci mu ne ma ah ma ne ko léegi damaa bëgg nga wax ma dëgg yow am nga jabar wala amoo jabar ci première mu ne man de xadi aw ma jabar ma ne ko amoo jabar yow âge bi nga toll parce que yaa ngi ci sa trente yaa ngi ci si trente trente cinq ans nga ne mu ne ma non man aw ma jabar mu ne ko amoo jabar nit ku nekk ci fanweeri atam ak juróom ci ponkal mu toll yow amoo jabar xanaa yow maximum góor sax bu toogee ba am vingt cinq la war am jabar mu ne ma non non man daa aw ma jabar ma topp suivi bi topp ko nag di laaj. benn jour ma daa woo ma ne ko léegi mu ñëw fa ndékki ma ne ko Aliou mu naa ah, ma ne ko damaa bëgg waaw kayita boo sax ma ne Aliou la tudd ma ne ko kayita damaa bëgg nga wax ma dëgg dëgg mooy njëkk mooy mujj ma ne ko damaa bëgg nga wax ma yow bu fekkee amoo jabar danga may wax ndax yow yaa ma topp génnaguñ sax lu mat un mois nga am danga bëgg takk ñaar danga bëgg a takk pour ma nekk sa aaw ma ne ko yow am nga jabar danga ma koy ne mu ne man aw ma jabar ma laaj ko forcé ko foofu forcé ko forcé ko foofu noonu ba ma ne ko léegi sama diggante yow dafa yem mu ma noono ndax man dama laa bëgg a takk nga nekk sama aaw waaye ma ne ko kon boo waxee dëgg gi rek man man garaawul soo ma bëggee man naa yu ba samay parents te bala ma bala ñoo dem ci samay waajur Touba dama koy njëkk ci sama nijaay ji bokk sama yaay ndey ak baay ndax mi ngi fii moom laa nekkal léegi bi ma waxee loolu ma waxoon mu topp ma ci nag ma mën naa ko ci topp sax di ko topp di ko topp di ko laaj après mu ne ma am naa jabar mu ne ma am naa jabar mu ne ko am nga jabar mu ne ko am mu ne ko loolu moo gën ndax mu ne ah, mu ne ko mu ne ma dama la ko bañoon sax nga may mere parce que yéen xale jigéen doo leen bëgg a génn souvent ñu am jabar ma ne ko déedéet waaye dëgg mooy njëkk mooy mujj soo ma waxee dëgg su ma la bëggee ba ànd ak sa dëgg su ma la bëggul ma xam ne bëgguma la mais moo gën nga di ma fen ndax fen moom tôt ou tard dangay feeñ mu ne ma loolu daal moo taxoon waxuma la ko ma ne ko ah ma ne ko nag jàppal ne noté naa benn tey wax nga ma benn tey lu dul dëgg ma ne ko léegi yoon ko yow sa jabar fii la nekk Sénégal wala Mali parce que man dana ma woon malien la musuma xam ne Aliou guinéen la mais ne damaa topp bu am ci moom information yoo xam ne daf na ma Guinée te ñi ma wax ni Guinée yéen la ak sama xarit bi ak jabaram ba man wax naa ak jabaram bi mu takk Sénégal fii wax na ma moom téléphone ba ne ma Aliou Guinée yéen la yor na jabar Guinée da ko abandonné ñëw fi Sénégal yaa ngi dégg. léegi nag bu ñu defee loolu ma topp ko ma naan ko wax nga wax na ma benn bu du dëgg ma marqué boobu denc ñuy doxal di doxal di doxal ba benn suur léegi man sama téléphone boo xam ne carton baa ngi ne la ci biir. maa ngi ko jëndee woon fi Touba sama benn yaay moom ko jënd 75000 mais dem dama ko yóbbaale. léegi ñu ànd jour boobu noonu man ak sama sama sama patron bi ak keneen ki may liggéey dañu am problème man ak moom. déedéet moom ñoom ñaar ñoom problème sama patron ak ki muy liggéey ñoom problème léegi bu ñu amee problème ma ñëw fa ma woo ko ma ne ko diw ma bëgg ngooñ nga gunge ma sa jakarta ñu dem ñu arranger problème parce que kii dama ko fekk ak patron bi ñu bokk di liggéey ba dara du dara man bu dee ba ñoom ñaar ba ñoom ñaar ñoom histoire bu ndaw mu ne ko comme que na man fii la ma fekk te kii daf ma ji lu baax man ko dañ fay dem ñu arrangé problème bi suba kii mën a xëy si parce que man donc nekk ci place parce que xam moom moo woo ñu këf sama téléphone xaw ma parce que man dama yoroon information wóor yoo xamante ma dana su ko police parce que sama téléphone ci këf ñu ko këfee xam naa ne njortu ne moom moo teg nit ay deal pour ñu këf sama téléphone parce que damaa envoyé ay photo yu bëri yoo xam ne moom Aliou ma gardé ko ci sama téléphone léegi nag buñu demee ma daal di sama xarit ma woo ko mën ko léegi ñëwal marché dama la soxla sama xarit bi mooy ki xulóo na mee ki may liggéey mu ñëw marché fekk ma fa ma woo Aliou ñu dem toog ñu ngi toog diggante seen non non bi sama xarit bi ñëwee ba woo ko ba jógee marché après bu mu ñëwee foofu bu ñëwee foofu ni ma ne ko Aliou kaay Aliou sama xarit dafa ñëw marché ñu ànd ba pare juggu marché pare génn ma ñëw ma woo Aliou ma ne ko kaay ñu toog nga wax ak kii dëgg ndax kii kat maire bi li mu ko wax sax xëy na garaawul mais xëy na moom moo ko déggee dégg mu garaaw te maire bi tamit moo ko moo ko déggee déggin bu garaaw ba tax ñu am problème te kii wax dëggaan dafa baax te man mënumaa defante kenn ci palaat bi lu du jëmm ji ndax ba ma lu moom ko leeralal parce que mënoon naa ko di ko laaj mu du ma danaa lu ma ko laaj mu ne xaw ma ci dara ba ma dugg ci erreur wala dara mais moom daal moom ma dimbale ba heure bi léegi nag Aliou ñëw toog waxtaan ak moom yedd ko avant ci suba ga fekk na maire bi di aaru foofu Alioune maire bi commencé di ma tàgg ma ne ko maire bu ma tàgg parce que man kee laa la fekkal ndax en général xam ne nekku fa jàpp ne bu subaa boo yowti boo amee ñu toog ñu waxtaan Aliou yedd ko nangam ñu daal di man sama xarit bi ak Aliou ñu yéeg ci moto bi ñu dem sama xarit bi mu ngi dëkk euh, fële robinet Bakar cité Senghor foofu la dëkk léegi ñu dem ba angalu sëñ Fallou léegi après ñu yéeg ci moto bi ñu dem suñ demee ba boo demee nag ba waaj yéeg ci àngali sëñ Fallou sama xarit bi romb seen benn dëkkandoo koo xam ne ñoo bokk même koñ dafa yore moto yóbbu ci kenn léegi mu daan ne kooku daa koy nuyu mu ne ko da ngay ñibbi mu ne ko kon taxawal ma ndax kii ñii sax indi di ma doon yóbbu suñ ko waaye ñi fële lañ dëkk ñu ñëwee ba foofu noonu ko ñu daal tourné waat rek su ma sama téléphone daal sama rakk bi dëkk sama rakk bi nekk fii ni moom doon woo ma génn sama téléphone ci sama sacoche di wuyu rek jékki-jékki ma geesu ma gis ñu këf sama téléphone biñ ko këfee ba maa ngi ci kaw moto bi too ak moom ma ne ko ma ne ko Aliou këf sama moto mu taxaw ak na ma kan moo ko këf waaw kan moo këf téléphone ma ne ko yow yow laay nañ te ñoo ko ñu dem gis ñi ko këf ñu taxaw di ma xool di ma xool après bi moom mi ngi ci moto bi toog moom Aliou non deful daal boobu dafa mu taxaw moto bi di leen topp fekk benn oto dafa tëli bi dafa traversé traversé jëm nii léegi nag mu demee bay jéggi pour topp leen benn oto di ñëw mu tax a xaar ba oto bi jàll ñu topp leen ba extension bu nekk rond-point Ngent jotuñu leen mooy yoon bi jëm Tiwaawoon ñu dem foofu noonu ñu dem ba foofu mu fekk ñaari garant yi taxaw ñu bokk la même chose ak ñu këf bi li ñu sol ko sama téléphone mun ma yow soxna si yow est-ce que am na moto bu jaar fii monte po di daw dugg yoon mbedd tiwa mbedd bi jëm ko ah ma waaw léegi après ñu taxawoo Aliou ne ma calme calme dalal daal moo gën li ngay def téléphone jaru ko. ma ko Aliou téléphone jar na ko parce que man sama téléphone samay données yu bëri ca la nekk. ma ne ko man ma ko téléphone ma loo xam ne moo tax may jooy mais téléphone bi sama nijaay moom ma ko jëndal yàggul dara ak man parce que bi mu fi ñëwee léegi matu sax deux mois ñu tëj këf ko loolu tamit mun ma da indi carton bi téléphone bi nekkoon nga yóbbu ko suba police bi nekk fii nii police bi nekk ngent nga dem nga déclaré ko foofu léegi après ci laa woo jël téléphone Aliou woo ci sama xarit bi ne ko sama téléphone dañ ko këf bi ñu la gungee noonu rek dañuy tourné rek may dugal sama téléphone sama pochette bi ma woowee rek ñu këf ko sama xarit bi ne ma loolu gaaw na de xarit ma ne ko gaaw na de waaye garaaw mu ne ma dalal bu subaa incha allah bu ma xëysee man suba comme que suba suba dinaa xëysi su ma xëysee soo ñëwee après ñu dem gendarmerie ba ndax nga def ko déclaré nga def nga déclaré ko foofu léegi nga indi indaale kees gi ñu xëy fajar après bi ma ñëwaatee ci ma ñëw suñu kër parce que booba maa ngi suñu kër ma daal di ma dem ñibbi suñu kër ma dem bu ma yeggee ma daal ñëw ba ci restaurant bi ma doon liggéeyee ma daal fa fekk sama ma ne ko ma fekk fay liggéey ku tudd Bachir ma ne ko Bachir aal ma téléphone ma woote. Bachir aal ma ma ne ma woote si sama numéro bi ne ci sama téléphone ma woote xale benn xale bu góor wuyu ma ne ma man soxlawuma téléphone bi yow sa ji laa soxla. ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko léegi yow fan nga nekk mu ne maa ngi mbuur ñëwal mbuur 1 ma jox la sa téléphone ma léegi yow jëlal téléphone a bees maa ko moom sama boobu ma jël ko dugal ko foofu dugal ko foofu ci téléphone bi ab ma ne ko léegi jëlal xaalis bi su ma ñëwee tegal la ci 10 000 muy 50 000 léegi nga jël téléphone bi nga nga bàcc ma fa wëcc fa bi bàyyi ma fa wëcc jël waa bi nga yóbbu ma téléphone bi daal léegi nag bu ñu defee noonu ma daan ne ko ñu daal di dem dem na bu ci ëllëg sax mais maire bi de maire bi sax dafa ne ma doo dem fenn ndax dafa guddi ndax fii en général dañuy këf sa téléphone naan la ñu ngi bërëb sàngam ñu ba fekk nekkuñu bërëb ba nga yegg foofu ñu ne la téléphone bi ñu dawloo di la wëruloo Thiès gi yëpp te doo gis téléphone bi téléphone yaa ko mën a liggéey mais téléphone mën la liggéey comme que yaa mooy liggéey bu ñu ba ci kanam naa la jënd téléphone grand yi ñu nekkoon ci place bi di liggéey xale yu góor ne ma kon ne toogal nga dem nga dem tëdd ba suba moo gën a téléphone jarul yenn yi mën nga dem ñu tëddee la wala ñu defalee naka su dul noonu ma ne ma xam ne daal loolu daal mooy dëgg daal après ma daal di toog léegi nag bi ma toogee ba ci ëllëg sa Aliou ñëw ma ne Aliou sama xar bi nekkoon dem leen police dem leen Kaaba camp militaire ba ngeen déclaré ko foofu ci brigade de recherche moo gën Aliou daal di insister daal ne tey ñoo dem police ngent ma ne ko non non nañ dem camp parce que kii nee na police day yéex gendarme mu ne moo gën gaaw mu daal di na après mu gëm mu ne ma nañ dem ñu dem camp ba mi ngi nekk booy dem côté HLM route de Dakar ci deux voies bi ñu yeggee foofu ñu dugg fekk fa benn chef de police bi ñu duggee ba yegg si ci wetu brigade de recherche waa ji ko ñu yeggee waa ji daal di ñëw fekk fa mu taxaw mu ne ko grand na nga def ça mu ne ko i moom sax moom moo ko nuyu mu ne ko grand na nga def grand bi ñu ko ne ko i kii du sama booy bi mu ne ko man la xëy mu ne ko ah yow de li ngay liggéey nii moo gën ci la nga nekkoon. waaw ci biir gàllankoor waaw benn waay bu nekk foo moo ko ko wax benn gendarme ne ko li nga nekkoon bu njëkk lii moo ko gën moo ko gën foofu nag man. waaw voilà maa ngi ci téléphone mais man booba talatuma téléphone bi booba li ñu ko wax moo ma gën a ñor. ma daal nag man sax booba sama xel nekkutu sax ci téléphone bi daal maa ngi dudde. waaw li ma dégg ma nekk nag di jàngal kàddu di ko jàngal. ba ci yàgg waa ji daa may ne ma soxna si indi carton bi ñu jël ko daal ma daal jox man bi ma koy jox bi ma jox waa ji sama numéro sax xamoo fu mu damaa jël damaa mu ne fa mu daal toog dana cell après ma génn ci bureau bi mu daal mu daal ma yëbaat ñu daal yéeg ci jakataam ñu dem xam nga jakataay dèjà dañu ciy seetu yi nu mu tudd nag léegi bi muy dawal maa ngi toog ci ginnaaw di ko xool ci seetu bi di jàng jëmmam ji rek di jàng kanamam ñu yegg ba ci place bi ma daal di wàcc léegi mu daa ne ma léegi garaaw léegi mu ngoonee ma dinaa indi téléphone téléphone tous bi ma joxoon mu ngi fee ci sama biir bagage léegi mu daan ne ma ngoon naa la indi téléphone tous ak benn piisu crête mooy piis ma leen woowe woon naa la ko indi après soo ngeen après ñu mag na yow ñu ciy déggante nga ciy déggante seen seen waa kër Touba mu ne ko waa baax na léegi nag ñu dem ba ca ëllëg sa mu doog ko indi après mu daa ko indi ma daa mu daa ma bàyyi ko ba 5 heures jot ba nga xam ne wàcc naa ma ne ko Aliou ñëwal dama laa soxla mu ne ma fan la ñuy daje mu ne ko damaa bëgg nga ñëw booy dem wetu camp ba ci foofu ñu defee sport ci fa bayal bi nekk foofu noonu am na ba jaaxle nekk ñu toog foofu ñu waxtaan ndax dama laa soxla mu ne ah mu ne ma ma ne ko après mu ne ma baax na maa ngi ñëw mu ñëw ne ma yow lanati la. jox naa la téléphone ñu ji di déggante léegi lu mu doonate ma ko ali mu naa ma ko yow de démb bu ñu àndee ma dem di pour dem ji dem fële ñu dem gendarmerie pour ma xool téléphone bi ma ne ko dafa am lu ma dégg te nag nit ki nag booy ànd ak moom te mu ne daf laa bëgg bay wax ci yow waxu soxna faaw nga leer lu bu baax man ma yow lan nga dégg ma ne ko dama dégg waa ji daf la ne lii nga nekk moo gën li nga nekkoon mu ne ma ah mu ne ma pour man ba fa demee sa yow sa nga daa ko yaa ngi déglu lu nit ñi doon wax kon de téléphone bi ñoru la mu ne ko ñor na ma kay mais nag téléphone ko mën a liggéey mais téléphone mënu ma liggéey ndax yow mënu ko am mënu ko nag say kaa mi ngi bëgg a bëri ndaxte da nga maa njëkk wax ne amoo ma toppati la fii nii waaw suñu kof sama téléphone nga jóge foofu ñu demati foofu may dem brigade de recherche ñu ne la li nga nekkoon li nga li nga nekk moo gën nekkoon bu njëkk mu daan ne ma waaw mu daal di ne fa daal naan ne man ne ko léegi danga may wax dëgg man ne ko tey moom damaa jël décision dëgg ma ne ko tey na tey la yem gis nga tey lii gis nga lii ba ma ko leeralee ma topp ko ba ci biir te du dëgg barki Seydou barki Serigne si dama lay bàyyi. mun ma xadi bul bul wax loolu mu ne ma mu daa ko mu ba fépp foofu ne ko léegi damay dem sax na yow du wax ko dëgg mu téye sama loxo ne ma kaay ma kaay mu ne tey dama lay wax dëgg mu sëngeem fa lu yàgg waxul ma ne ko Aliou yow laay waxal de man damay dem dafa guddi. damay ñibbi parce que suba damay liggéey mu ne ma taxaw na wax la dëgg gi mu ne ma man li ma indi woon ma kaso bu njëkk tey dama la xayma ba mu leer man xarit dama nekkoon mbuur marché central mbuur laa nekkoon di fa jaay ay cuubu malien dañ ma doon jox muy wër di jaay ay cuub léegi nag bu ma demee di wër di wër ba benn gaan gis ma ci malien yi dama yow de booy bu sawar nga ngaa nangoo liggéey léegi man dinaa la jàppale ba nga am place fii ci mbuur ngay jaay ay cuub léegi après ne bu defee noonu def na waa ji daa ko tijji place muy jaay waa ji di ko indi ay cuub muy jaay mam dem ba xam ne njaay mi ëpp na ko doole mu woote rakkam rakkam bi ñu naan Amadou mooy kooku te jàpp nañ ko sa affaire bi léegi après bi mu ko wooyee biñ ñëwee kooku di ko jàppale nee na ñu dem ba ci bii nee na moom ci mbaaxam muy lebal ay nit di leen lebal di leen mu dem ba xam ne magasin bi mi ngi daa mu daw mu ñëw cees waaye man nag loolu ba tey góoma ci dara ndax wax man nag lépp nag ci waxam la rek après mu ne magasin bi dafa daanu ne mu daw mu ñëw Thiès mu commencé faa nekk di liggéey ba am Jakarta ñi mu yoraloon xaalis di ko wër ba fekk ko Thiès daal koy jàpp daal koy tëjlu ci brigade bi nekk Thiès foofu may camp ne ñu tëj ko foofu ne ci gendarme ne foofu noonu léegi après na bi ñu ko tëjee fekk avant avant avant ñu koy tëj mu doon génn soxnaam si mu takk muy Ndeye Ndiaye waaw ki mu takk senegal kooku day jaay ay promo Thiès léegi après nee na fekk ñu ngi génn neen ñu dem ba ci digg bi kooku daal di ñëw daal koy laajte ci arrêt bi mu doon taxaw ne ko ana diw ñu ne ko diw de nekkatu fi dañ ko jàpp kaso neen nag waa ji neen ndaw si topp ko topp ko di ko jàppale diiraa mu ne ci kaso bi kooku mu ko doon indi añ di ko indi reen di ko nemmeeku nee na ma xam ne bu ma génnee amu lu ma koy fayee lu du ma takk ko parce que gis naa jikkoom doy na ma te nit ku baax la dafa ma jàppale mu ne ko ah waaye loolu dëgg la parce que li mu def bu ko ma ko su ko defee te amul jëkkër te yow tamit amoo yow ne amoo jabar faaw nga tag ko parce que loolu lu normal la parce que lim la jàppale moo tax mu ne ma loolu de moo tax xadi ko waaye def nga lu rafet waaye nag Aliou mu ko na ah, ko fu ne lay jógee waaye nag mu ne ko man de li ma jaaxal mooy yow da nga am complexe sa bopp. te dëgg Aliou muy njëkk mooy mujj ndax fen du yem ak dëgg ndax mën na ko nit ku nekk ci fen mën na ko mën na ko lu mu yàgg-yàgg te wutaat dëgg dana ko fekk. te boobu la ngeen di la ci soxnaam si mu am. Guinée non waaw waxuma tamit ne ginee la boobu Malien Malien la ma wax mais man comme que dañ ne ñun nit ki. recherche yu mu gën a def ci yow jigéen pour xool yow yaay kan yow mu xoolal ko góor ki mooy kan te dèjà nit dana la takk fi yóbbu la ci yeneen problème yoo xam ne yow daanaka yow doo ko xam moom mooy moo day lépp rek pour bëgg laa jot mais nag man tamit rek ma topp rek parce que wax na ma ñaari yoon lu dul dëgg ma topp gën a def samay recherche gënu maa tayalu ma daal yoon ci moom. léegi nag bi ñu defee loolu ma daan ko comme que noonu la demee ma ne ko ah ma ne ko loolu de nattu la waaye nag ma ne ko Aliou ma ne ko ah ma ne ko téng maa wax dëgg gi réellement mu ne ma barke Serigne Touba Mbacke lii ma la wax noonu la demee. mu ne ko ah la demee mu ne ah ma ne ko baax na après fa la ma wax ni sama jabar ku baax la parce que moom sax amoon na benn doomu nijaayam xamu doom bàjjenam ñaar yu antu la ma wax ne ma ko ko bëggoon a takk. waaye moom daal daf ne ma garaawul léegi nee na bàyyi doom bàjjana mu dul sëy man la ñëw sëyal yaa ngi di fekk sax kooku takk ko ne ñoom bëggante rek ba ko waaj ko mari waaye dafa siisu ne man maa koy takk mu ko ah ma ko baax na ma ne ko kon baax na waaye nag ma ne ko loolu de nattu la waaye fexeel bu ci delluwaat ndax waa ji li mu wax nii boo ëllëgee mën nga fee am ak keneen problème dikk fi lool mën nañ ko to ba ci bi tëjaal la fi mu ne ma loolu dëgg la mu ne yow daal fois man soo gisee bëgguma la bàyyi danga may xelal di ma yedd mu ne ko loolu moo war te tey ji bu doon sama mag la wala sama dalal moom ni mu ko li mu la ko waxee ni laa léegi nag ñu continuer ma ne ma ne ko garaaw ma ne ko léegi ba suba ñu demati demati demati ba ci biir 11 jours mu woo ma téléphone ne ma xarit daf ma feebar ko Aliou feebar maa ma ne ko lu la dal mu ne ma man de non dama toog sax deux jours gisuma ko gisuma ko place bi mais ma doon ñu ngi déggante téléphone ma ne ko fan yëpp ñëwoon dégg si mu ne ko Aliou lu xew ba jàmm la mu ne man de Xadi dama am problème mu ne ko problème mu jàmm mu ne ko ban problème mu ne sama yaay dafa feebar mu ne ko sa yaay sa yaay fan la feebar mu ne sama yaay dafa nekk Mali mu ne ko Mali mu ne ko loolu tax liggéey sa yaay feebar mu ne ko mën nga liggéey te danga koy nemmeeku waale mu ne ma noonu sama yaay dafa feebar fu may waxee yow dama jaay sama moto mu ne ko danga jaay sa moto mu ne ma waaw mu ne ko ah mu ne ko sa yaay moom ban feebar ko dal ba tax yow nga jaay sa moto mu ne feebar daal dafa garaaw sama yaay dañ ma woo dimbaleen sama yaay dañ ne la mënut a fexe ba yeewu fu mu tëdd mu ne ko Aliou loolu garaaw la de mu ne ma garaaw na kay instant bi nga jaay naa moto xaay bi ma ba tey sax bi ma ne ko ñaar bi mu ne moto bi maa ko jëndee woon ne mu ne ma noonu Jakarta dafa ëppalante ay prix dafa gën a baaxante na royal ak faux am na am na faux ak royal ma ne ko ah noonu la ah ne ko ah la moo tax ma ne gaayen bi ma koy ñu yéeg a ko wàcc ci li ma la desal waaye mën naa ma ko loolu bi mu dem Mali loolu laa ci génn ma ne ko ah mu ne ko kon baax na a ne ko ah Aliou loolu moom loolu nga 300000 bëri na ko kon yow sa yaay ban feebar ko da xanaa feebaru jalis moo ko dal mu ne yow ñaanaloo sama yaay jàmm mu ne ko feebar boobu dalaa gën a xam ne mooy feebar bu gën a garaaw nit ko amee di nga ñàkk ci moom xaalis bu bari ma yuru feebar waaye sama yaay daal dañ ma woon ne feebar daf ko daan feebar bu yàgg na ko daan te yónnee naa ma ne ko yow n'est-ce ne ma ñaari moto laa am xanaa yow xanaa yow nga jël sa beneen moto bi nga jox keneen ki mu di la siiru nga dayal ko nga liggéey mu ne ma ne ma ñaari moto yëpp laa jaay ma ne ko Aliou ñaari moto mu ne moto yëpp daal laa jaay yónnee ko ma ko kon baax na ma ne ko comme que liggéey liggéeyi ma ne ko léegi maa ngi lay tibbal añ ci palaas ma jënd yëkkati sama xaalis jënd sama añ 1000 francs ak benn jus bu sama xarit bi yaa am indi woon fi di ko jaay la ma jël ma fayal ko jakarta ne ko yóbbul ko ko ci këram nga jox ko ko mu añ ma ne ko an sa jabar ma sama jabar de di ba léegi daf maa que dama koo leb xaay pour mu aal ma xaay ma yóbbante ko sama yaay waaye moom nee dama xaay yor xaay fekk ko du ma lebalaat ma ma wax ak yow sax añu ma sama bopp ma ne ko garaaw ñun tey sebon lañ togg ak ceebu jën naa la tibbal sebon defal ci benn jus borom jakarta bi yóbbul la ko borom jakarta bi ngi tudd papa saw di gaari fi mu wetu ma jox ko yóbbulal Aliou mu yóbbul ko bi ko yóbbulee mu ji mu naan añ ba pare dama xarit def nga dafa defati nga defati nga lu gën a baax loolu ma ne ko ah loolu du dara ñu toog toog ba ca ngoon ga mu woo ma ne ma xarit man de damaa jaaxle dañ maa wu fii léegi ma ne ko lu xewati yow mu ma man de dañ maa wone sama yaay de ba léegi ma ne ko Aliou li nga fa yónnee lépp ci xam ma lépp dugal nañ ko ci ordonnance ak ay fayulal ma ne ko ah Aliou loolu na waar nekk bi jaayu ci lenn man la bëggoon a piéger xool ba xam place bi ma nekk am naa fa accès pour am naa ci xaalis bi accès te xamul ne man foofu noonu dañu fay liggéeyloo rek foofu dafa am keneen ku fa nekk di jaay mën naa wax ne man ci beneen wàll fàll fànn gi laa ne keneen ki mooy garde xaar mooy def lépp ndeke bu mu may pièce xool ba xam man mën naa am foofu accès pour àbbu maire bi xaar ak ni ni ñu mel ak maire bi léegi bi ma waxee loolu mu ne man dama damaa bëggoon nga àll ma 300000 ma ne ko 300000 yi jàmm ma ne ko man su ma dajaloon fi cent mil du ma toog fii di liggéey damay ñibbi suñu kër investir ko wut dara da toog nekk suñu kër toog sama witu yaay sama witu papa mais nag kon du ma toog yow am nga foo ko mën a nga lijjantil ma ko ma ne ko Aliou ma ne ko man yuruma fu daal ne ma yow daal wax dëgg yàlla comme que yow da ngay yor ma lay àbb ngay bañ ma ne ko man fii sama nijaay laa fi nekkal maire bii may liggéey ma ne ko fukki dërëm mi gën a ndaw ma ne ko du ma ko ko àbb li ñu sekk ma liggéeyal ko weer dee mu fay ma sama xaalis mais dugg fi àbb pour àbb pour yow ma sauvé la ba ëllëg ma nga dugal ma ci jéyee du ma ko def ndax n'est-ce pas nga mën a wax lu dul dëgg ma ne comme que loolu la kon baax na mu coupé téléphone am ni ma yow daal xam naa ma bëgguma jàppale sama mbiru yaay man ko bëgg naa jàppale mu kaa yuru su ma yoroon sama xaalisu bopp sax dama la ko aal ñu def noonu def noonu mu heure mu naa may bloqué dugal numéro liste noire ma ko ñaari yoon jotuma ko bàyyi ko ma daal sama xarit bi toog ba jaane ma yore diw gisatuma ko mu ñëw fi man ko diw daf maa mere ndax daf maa ab xaalis abaluma ko mun ma ah, ah loolu mu ne ma ñaan la man ko 300000 la ma ab na ne yaam daf feebar. mu ne kooku est-ce que wér na 300000 foo ko ko jël yéen nga xam ne ngay fay ko mënut a 50000 ko loolu de la wax nee na maa mere nag man na du topp ci ginnaawam di daw ndax sama ma di daw buñ benn jour parce que moom mi ngi boolu jàmb sa mère bi mi ngi may sonal indi bool bi ak na indi bool yi bool bi bañ ko jëndee yàgg bool bu bees biñ defee loolu sama bi sonal ma ci ma ci benn jour ma ne ko diw ma ne ko ma ne ko tey dañuy dem marché su ngoonee man xam naa garage bi Aliou di taxaw bu ñu fa demee ma dem fa laajte ko moo ko fekkee ma wax ko mu indi boolu jàmbur donte dañuy bàyyante waaye dama delloo si boolu jàmbur bi ma dem fa fekkuma ko fa ma fekk fa benn gaayen boo xam ne ñetti laa fekk borom jagataa ñu taxaw ñaar ñi ay sénégalais kenn ki malien la bi ma yegsee ma nuyoo ma ne salaamaaleykum ana sama xarit ñu dugg maa pare ñu génn ma fekk la ma nuyu borom jagataay léegi man ne man de kayta laay laaj ma laaj ko ñaari ñaari sénégalais ñu ne ñun de xamuñu kayta léegi ma laaj ma bi ne man de kayta laay laaj malien bi ne ma kayta mu ne ban kayita ma ne ko man de kayita kayita bi taxaw fi mu ne fii de benn kayita moo fi nekkoon te kayita moom marié ku jóge na fi parce que bu fi jógee mën na 6 ans léegi bu mu fi jógee fii ci Thiès gi waaye nag am na ku fi nekk di mbubboo naan kayita la tudd kayita mu ne ko ah, wax ma wax ma wax ma wax ma daal nu mu mel ma xam ko ndax bu fekkee kooku la dinaa xam ki ngay wax nu mu mel kan la waaye daa may expliqué ne ma benn waay ju xees ju am yaram bi sol kap bi takk ay verre wax a wax ne ma yow Aliou Kouyaté ngay wax foofu daal bi ma waxee Aliou Kouyaté fu mel ni man daal sama cër yi dafa bañ daal ci changé ma xaw a jàll sama xarit bi ne ma naa la ko mu ne ko yow ci laa ko harcelé ne ko yow may ma sama jàmm ma wax ak kii kii la ma ma jëlee kaw léegi kooku ne ma xanaa laajoo xanaa laajoo mu ne ko Aliou mu ne fii rek Aliou benn Aliou Kouyaté moo fi nekk di mu béy naa mooy kàddu mu ne ko ah mu ma ah mu ne ko après waaj na ma léegi yow lan la yow gis ngay laaj ne nga sonn ma ne xaama leeral lan la ndax kooku bari na jéey yi mu fiy def. bëri na ay xale jigéen yi fiy ñëw di ko laajte comme ni nga koy laajee ma ne ko ah loolu de dëgg la waaye man de waa ne ma lool leen ma ne ko man de bu bëgguma leeral sax waa ji luñ séq waa ji ne ma soo bëggee ma dimbale nag may wax loo leen séq ma leeralal la kan mooy jëmm jooju ma ne ko waa dëgg la sëñ bi dinaa la wax lu ñu séq ma ne ko Aliou de dafa ñëw suñu resto di fa añee di fa ndékkee dañ ko dibbal ak boolu añ mu téye bool bi dañu ko daman bool bi bool bi moom ma ko mu ne ma loolu kese la ma ne ko loolu dong la parce que lépp maa ngi bëgg waa ne ma bu dee loolu kese la dinaa ko wax ne la indi bool waaye waa ji da fekkee da ngeen a séq lalaa lalaa lépp xaalis bu yeboo nga xam ne ñàkk nga ko su fekkee dalaa digg dara bu yeboo nga xam ne loolu mu nekk waxul dëgg ma ne ko xam ah, mu ne ma waaw léegi waa ji ne ma Aliou Kouyaté ngay laaj drosine Guinée guinéen la fii lay taxaw ci marché fii benn am na jabar Guinée ñëw takk jabar Sénégal day wër nag di mbubboo ne amul jabar te yor na jabar seen dafa abonné ne jabaram Guinée du benn malien guinéen la amul mës am doom man ci li ma wax ne ma xadi mësuma am doom moom ma ko wax. léegi biñ defee noonu mu daal ma ne waa ma mu ne ma fekkee da a séq xaalis mais ne ko séquñu xaalis ndax wax dëgg yàlla du ma du ma ko fenal séquñu benn mu naa ma ne ko nag loolu dong la mu daal ma moytu ko ndax ni nga ko fi laajee noonu la fi mu ne ma chaque jour jigéen ñëw fi di ko laaj. bu fekkee da ko da nga ngeen a si da nga ko waajale ba dara war ngeen waaj séq dara yow nga arrêté ko ndax kii triant la te day mbubboo nangam ma daal ne ko waa ma ne ko léegi yow jërëjëf def nga def nga lu rafet ci laa jëlee numéro grand boobu daal di grand bi wax mu turam fàttali na te xuma daal jënd lu xuma am na daal turu malien la yore léegi après yaa ma ne ko kon léegi maa ngi dem waaye su dikkee nga ne neen nga indi ko bool léegi mu ñëw benn jour ma di ko bàyyi xel rek suñ buntu palaas parce que foofu la ñuy jaar borom jëkkataay yu bari ma di ko bàyyi xel bu 11 jours ñu dem dugg ba ci koor gi premier koor premier jour koor ba ca ba ca ëllëg sax mu daa may romb suñu buntu palaas yore jakarta damay ñëw rek di xëy rek teg sama saag rek gis ko muy traversé rek di di dem rek ci tali bi ma teg sama mbuus sànni ko ci biir palaas bi daa di koy daal di jël jakarta topp ko marché moo ko fekkee ci gaar même fi ma ko gannaaw bi xewoon ma fekk ko fa mu taxaw ma poñe ko ne ko Aliou mu ne ma déedéet waxuma ko sa Aliou bëgguma mu naan ne kan wax ne Aliou la tudd ma ne ko Kayta maa ma ne ko man de ma na ko ma ne ko dëgg la gis naa ne wóowatoo man nag du yàgg mu topp sa ginnaaw dox tey li mu fi indi ne ko leen la ma ne ko dama bëgg boolu jàmbur bu ma la yàkkaloon ko delloo ma sama bool ñoo ne ko soo may bàyyi ma ne ko waaye bu may bàyyi waaye bu fekkee ba nga waaye bu téyee bagage ma waaw bana mu ne man de la sax yow dama laa leb xaay pour sama yaay nga jékki-jékki nga ne doo ma lebal mu ne waaw comme que noonu la demee mu ne ko léegi baax na après mu ne ma demal suba dinaa leen di bool bi place ma ma ni ko xam naa ñaari garage yi nga taxaw yëpp bëgguma la fa fekk di leen di benn plaignant ma ne ko ah, mën ko waaye indi boolu jàll borom mi ma koy laaj léegi bi ñu defee loolu mu daal ne suba demam suba incha allah ni ba mën ko léegi borom jakataa bi mu indi jëla nga ko parce que mu may ñëw génn mu indi woon ma maase mu ne léegi ma jëlal ja ma ko jëluma jakataa yaa ma yóbbuwaat ba suñ place yaa ngi dégg mu yóbbu ma ba suñu place mu ne ci yoon bi naa ma waaw loo may toppee mu ne nga waaw ma ne ko yow du la mënu woo ba jot parce que da ma dugal liste noire bu ma la wooyee du ñëw yàgg yaay man bool bi doyu ma ko dara ab bool kese moo gën nga mett bool nga xam ne téeméer loolu mu nekk di ko wax ne ceel la mu ne ko waaye suba laa la barke alxam ne suba bu bu may indilu bool bi naa dem police ma plainte la man déedéet mu ne foofu duñ fa yegg naa la indi bool bi léegi ñu xëy bu indi bool bi après bi mu xëyee mu indi bool bu fekk ma fekk sama xarit mi ngi taxaw ci buntu ñuy ranger la bagage yi ñuy génn bagage yi ñu jaay ci koor gi kooku ne ko yow de yow de yow Aliou yow yow kay de yow ko baadoo la nga kii defal la teraanga yëkkati xaalis jënd la ci añ nga ne ko da nga feebar mu defal la teraanga ak loolu mënti jote ngeen di boolu jàmbar bi soo koy basa nga ba ko mais bul téye boolu jàmbar di ko ci bandax moomu bool bi léegi mu daal reetaan na ko mo dama ko doon seetlu rek man sax ko de dama ko doon ñu naa def noonu mu ne daf ma doon seetlu mu ne ma après waxtaan ma ne ko fi ñëw comme que nee nga da nga maa ba ba ma rek ngir yàlla moo gën mu daal ne ma déedéet yow mënu ma la ba parce que da nga bëgg sama dund ma ne ko Aliou mu naa ma ne ko ba moo gën parce que yow benn doo wax ko dëgg naa nga ma def parce que boobu ngi denc la sama xol li ma waa wax léegi ba mu ne ma nag ngoon naa fi bu fi ñëw parce que man damay teel a parce que boo fi ñëwee ngoon du a teel a mën a génn te yow da ngay bëgg boo fi ñëwee balaa da ngay ndogoo sa kër tamit heure ndogu du ma génn suñ kër dëkkuñu soxnaam mi ngi dëkk Madina Fall soxnaam par dimanche ak par samedi la fay nekk moom xanaa soxnaam xamul yooyu mu doon yooyu mu doon def. waaw xam naa ko dinaa ci ñëw soxnaam man soxnaam wax naa moom téléphone benn yoon te gis naa ko après bi ñu defee loolu ma daal fay ñëw ah déedéet après ma daal mu ñëw place ba mu jëngoon ga mu ne ma dinaa fi ñëw tey ma ne ko bu fi ñëw tey bàyyi ba suba ci suba ga la fa ñëw ci daal di toog di waxtaan après ma ne ko mu daal ne ma xadi baal ma àq ma ne ko Aliou ma ne ma àq baal ma àq. man ko amul àq de yow nag maa leb lebalu ma nag dama maa mere man ko comme que nag mere nga ma garaawul man ko man ko amuloo ma àq parce que man lebalu guma la xaalis parce que yow man ko da nga maa bëggoon a dugal ci guuta pour nga bëgg man ko da ngaa da nga maa foogee xaalis man yoruma xaalis ma ah man waa baax man damaa bëgg daal ñu nekkaat ci jàmm ñu bàyyi coow yi nangam man lii sama yaay tane na man ko loolu gaaw na di yow diggante bi nga ne sa yaay def feebar nga ñëwaat nga sa yaay tane na man ko kon baax ko tane na baax na waaye léegi nañ bàyyante rek ma noonu bàyyante mënta am ndax yow bëri na situation bëri maa ngi ciy dugg yaa ma ciy génn man ko loolu dëgg la waaye man dama laa jàppee comme mag di ma bokkal ndey ak baay jàppee la comme sama nijaay waaw dëgg la nag ma ne ko da nga da nga maa bëgg ma yow ni ma la gisee nii man ma ak yow mu ñu dem ndaxte yow sa comportement ak sama comportement du benn mu ma déedéet ndax yow leer na ma ne su ma duggee ci yow di ma changé ma ne ko ah mu naa ma ko waa léegi baax na léegi baax naa la amul benn problème après ma ne ko léegi nag tey bala ngaa def sax ma ko am naa ne beneen information bu ma yore bu bees yow bu ñu war a wax mu ne ma ne ko après ci laa ko Aliou Kouyaté d'origine guinéen rek mu tëb ba ci kaw tëb wàcc moto bi taxaw na cëkk wàcc ni ma daa may poñe ba maa ngi soloon benn body ak benn tubéy mu daa may poñe ne ma xadi nga lii mu ne ko xam lan mu ne yow kan moo la ne man laa tudd ma ne ko kan moo ma ko wax ma ne ko ma ne ko bàyyi ma pare ma wax la ku ko parce que su ma ko bàyyiwutoon daf may gaañ parce que maa moom doo nga nekkoon foofu ñu doon waxee mu ne ma yow kan moo la wax ne man Aliou Kouyaté laa tudd kan la wax ne man guinéen laa ma ne ko Aliou ma ne ko waxoon naa la ni dëgg ak fen duy ànd te yow ma ne ko ma ne ko nee naa la man amul nit ku may àndal nga dama fen te doo feeñ ma ne ko loolu nag xaw ma nag du tax ma ne ko xamoon nga yàgg-yàgg di nga feeñ ndax bu fekkoon ne bool bi ñëwoon na xëy na yow sa mën na continuer mais bool bi xëy na yàlla dafa yàlla yàlla dafa jaarale bool bi pour mu feeñal la pour ma xam yow yaay kan mu daa ne ma tey na damaa bëgg bala ngaa buusi fii di ma wax ki wax ni man ali Aliou Kouyaté laa tudd ak man guinéen laa boo waxuma ko sax dégg naa am nga am nga beneen jabar nga abandonné ko wëcc ko foofu noonu ndax su ma ko waxoon man na fa gën a mën na ma gaañ wala dara daal mën na ma gaañ daw wëcc ma fa léegi ma ne garaawul naa yem foofu rek bàyyi ko noonu après mu daa may nekk ma forcé daal di ma wax ko ma ne wax ma ne ko damaa bëgg nga bàyyi wax lu amul ndax wax lu amul amul njariñ ma ne ko nag comme que yow ma ne ko am ma ne ko nag lii mooy ñetti ko barke Serigne Babacar Sy ko am ma ne ko tey nga may baax ma ne ko danaa leen ma ne ko noonu ma ko ma ne ko nag léegi dinaa la ko wax mais su ma la ko waxee rek may baax te su ma la waxee kii ma ko na nga fexe ne ma ne ko soo dee marché boo ko gaañee dina ñëw ba police fekk la fa fa nga ko gaañee fi ñu jàppee wax la ko man leeral ba leer nañ ne man kooku dama ko wax ma ñëw wax la ko pour lan man dama bëgg na nga bàyyi la après man ma kàlla ko waa ji nu mu mel. mu daal dem man ma kon maa ngi dem mu taal moto mu dem bi mu taalee moto mu dem mu daal def nee na mu xëy mu dem mu ñëm ci garage bi nee mu def fekk fa waa nee na mu daal ñëwaat ne ma yow yaa tax tey sama gaa yi nekkoon ci gaal moo tax tey rey ma waaj waaj dama ko bëggoon a rey ndax waaj dafa may feeñal ci la nag sama xel demaat ma ne kon kii lu tax mu këf sama téléphone mooy photo ya nekkoon ci téléphone ba moom la bañ ëllëg bu amee problème mu yóbbu ko police mu feeñ ndax su ma su ma ko identifié photo yi dañuy xam ne kii amoon na jéey mu defoon après nag mu daan ne ma mu daal di ñëw place ba fa di wax ne ma yaa tax reyu ma ko dugg na fii génne na fii ma ne ko ah man de loolu yëpp sama yoon nekku si naa ne daal bu dee bu fekkoon tey xoosoon nga ko rek yow moom foo jaar di nga sëdd kaso ndax que rek li ma bëggoon rek mooy mu leeral wax ma li nga xamante ma dem daal ba topp ko ba xam parce sama téléphone la laa doon carte pour jot ko que téléphone bi dem naa ba dëkk fii sax ku ko jiñoon sama doomu nijaay boo xam ne ñu dëkkoon ci kër gi dëgg la dama ko romb même pas ñu ak fi ñu ko wee téléphone jàppoon naa sax moom la mais nag dama gën a dem ba xuus ni xam ne Aliou téléphone bi loxoom génnu ci parce que suur bu ma gënee am problème suur bu ma gënee nekk di misère téléphone marché la ma fekk marché sama xarit mu ne ma bu dee téléphone ma ne ma liggéey man ma ne ko man dañ ma ko jëndaloon xëy na naa liggéey fi ba amaan njëgu téléphone mu ne ma kon garaaw bu ñu parce que boo ma jëloon décision pour ñibbi si fii ci kër gi toog. waaw dañoo continuer waat man dama dama dama ko gën a topp parce que bëggu moon ko bàyyi pour rëcc parce que boobu man maa ngi maa ngi def ay recherche pour pour lijjanti ma jot sama téléphone. léegi après ñu def noonu def noonu ñu continuer mu di ma woo ma di ko woo ma ne ko nag léegi ma ne ko ma ne ko lu ma bëgg nga changé sa comportement Aliou ma ne ko ma ne ko gis nga dëgg lu mu la mayul fenn du la ko may ni nga nekkee ci dëkk bi jekkul jaaduwul. ma ne ko leer na ma ni yow da nga ne ci man nga yem ak sa jabar parce que avant may xam ne am nga jabar dama la cee forcé ba nga doog ma koo wax. mu na ma waa loolu de dëgg la waaye waa ji mu laaj fa la ma laaj ne ma waa foofu rek la yem mu ne ko waa ji foofu rek la bu bëgg ma ko xamal ni waa ji yemul foofu mais nag bi ma demee ba gën a xam ni daal am naa ci moom ñetti kaa yooyu ba ñeent après mu ñëwaat ci ëllëg sa ñu toogaat ba mu yàgg mun ne ma lii damaa bëggoon yow yor nga carte d'identité nga jël sa sant nga def sama sant pour man ma am carte d'identité senegal ndax man amuma carte d'identité Sénégal ma ñëw fekk sama xarit bi ki may liggéey na ma ne ko man diw dafa am lu ma waxati ma ne ko nee na looy def doolu ba jël sa kayit di def ko ba liggéey jiyee ju mu def ci àdduna yow la demee bu ma ko ko defal mu ne boo ko defee ni nga ko réccu bu la ko dara àdduna jaral parce que maire bi ñu mu ko def ma ne ko man ti ma ne ko allez loolu daal du ma ko def di nga man mënu ma laa lijjanti carte d'identité ma ne ko man mënu ma laa lijjanti pour nga am crédit pour sama sant loolu moom mënu ma ko ndax loolu moom yéenuwul sax maanaam ndax ëllëg moo tax xamoo yan problème nga maanaam bu dugal mën na ma léegi bàyyi ko ñu dema dema dema dema dem ba ca korite ga ma ñëw ma daan ne ko mu daan may topp di ma boobu ma ñëw boo dama ne ma julli ji sama kër rakku yaay bi sëy canaba bi ma ñëwee foofu mu daan may woo téléphone ci guddi ga nee na jabaram dafa jël téléphone am xool ci gis appel moom appel yu bëri yi may woo gis man tamit sama appel ñu ne fa di xeex ñoom ñaar mooma jabaram ñu jote ay histoire moom ko wax de daa koy woo téléphone ne ma xadi ma ne ko ah mu ne tey de sama jabar daf ma gën a armul paaka ma ne ko paaka mu ah man ma nga ne man ko man nekkuma Cees dama dem julli ji sama sama kër sama kër nekk cana ba foofu laa jullee ji jullee ma Cees léegi mu daal ne ah man de ndey ma gën a paaka de neen daf may rey ndax dafa gis say appel ak samay yu bëri yi ma lay woo ma ne ko paas ma sa jabar mu paas ma jabaram léegi ñu nekk foofu jabaram di commencé expliquer fu ñu jaar ñoom ñaar lépp wax ma bi may wax di ma wax ba ci man ko soxna si loolu yëpp dëgg la waaye man moo ma paas jabaram ci téléphone paas ma ko ci téléphone léegi bu ma paasee jabar ji téléphone jabar ji ne man yow soxna dama bëgg nga wax loo séq sama jëkkër parce que nee na ah, Aliou daf na ma arme la yore léegi bu nga joxee téléphone bi Aliou di wax ci suuf ne ma xadi xadi yow séquñu dara man ak yow loolu ab yow dama la yóbbu rek di la indi loo tax ma di la wooyee saay ma xam ne comme que dama génn dama sori mun ma déplacé wu ci guddi bi ma woo pour ma jóge pour ñëw Thiès ma xam ne nag bakkal moom bëgguma ñu gaañante fa ci laa nag soxnaa ma calmé jabaram ne ko boobu nag laa waxee jabaram loo xam ne du ma métti sama xol ba tax mu poussé ma dem ko dëgg wax jabaram dëgg yi ma ne ko soxna si mu ne ma ma ne ko man de sekkuma dara sa jëkkër sa jëkkër wax dëgg yàlla daf ma indi rek abonnement kese laa ci moom mais ne dama bëgg nga bakko loolu dong lañ sekk mais sekkuñu dara man ma billaay ma ne ko waaw noonu la demee guddi googu yëpp nelawuma man daal di ma daal di xëy bi ma xëyee ba ci ëllëg sa ma ñibbi di ñibbisiwaat Thiès ma woo ko ma ne ko Aliou mu naa ma ne ko nag toro si toro ma ne ko léegi nag damaa jël décision pour nga ba ma tey da yi fu ñu jaar di ma bàyyi ma ne ko soo ko deful ma ne ko ah ma ne ko barki dinaa ñëw ba sa kër wax sa jabar dëgg gi ndax yow trompeur nga ndax yow li nga fi dara du ci dëgg mu ne ma yow sañoo loolu ñemewoo loolu amoo fitu sax di ñëw sama kër di fa wax naan man a yow dañuy génn ma ne ko man duma ragal te décision bu ma jël ne dinaa ko wax nit mën mënuma ci kenn ma a wàññi samay waajur mm. mais bu nekku samay waajur nit àgg xanaa koy wax mm. léegi noonu ñu toog ba ca ga mu daal may woon ma xam naa li ma la waxoon ci korite gi xaalis bi ma la waxoon ne dinaa la ko joxuma la ko moo tax nga mais man ko man xaalis yi delloo ma ndax bu dee korite man ko man xotti naa ci korite gi pare mm. soo ma joxul loolu sama yoon nekku ci waaye damaa bëgg ba man ndax yow mi jéey yi ngay dugg mi gën a bari kon yaa ngi sa jabar dem ngeen may jëlantee arme ci man mi nga xamante ne du ma sa jabar du ma sa dara sekkuñu dara doo doo sama jëkkër du ma sa soxna ma ne ko léegi dama ngaa na sa soxna ndax kee nga takk si farata yàlla sunna Muhammad man sekku guñu sekku ma ak yow dara kon bu leen fi gaañante ëllëgee man nga boo leen fi gaañante man mën nañ maa bañ a wóppali te fekk man am na lu ma ci xamoon toog ak moom ma bàyyi ba ngoon ma daal di solu daal di dem këram daal di tàggu sama mère bi may liggéey na ko ma hmm? ku ma xam la woon këram parce que man moom ak sama kër nijaay parce que moom wetu ngent dafa jógeen fu sama kër nijaay waaw fa la dëkkoon waaw ñoo bokkoon koñ mm-hmm. léegi nag après ma daal di ma daal di wax jabaram après ba xam naa turu jabaram ma daal di jël jakarta ci guddi gi mm-hmm. benn borom jakarta sama benn xaritu jakarta bi def foofu cee ma ne ko mu ngoon jotee dama bëgg nga ma tey ji nasru parce que nasru googu laa jógee woon sama mm-hmm. dama bëgg nga yóbbu waa ji daal ma indi ba nasru ma ñëw ba ci buntu bi ma woo ko ma ne ko ali mu ne ma ma ne ko dama bëgg nga génn nga waatal ma ni ba nga ma te nga wax sa soxna ni xadi sama gel la woon bàyyante nañ mu ne ma yow foo ne ma ne ko maa ngi ni ci buntu bikit bi te man ma ne ko boo yéexee boo fa defee 30 minutes dinaa la fekk ci biir kër gi. mu ne ma yow amoo fitu loolu dama fekk ma ne ko Aliou naa ah, ma ne ko man ma ne ko yow sa bopp nga xam waaye man bul ma xam. mu naa ah, ne ma ah mu naa ah, ma ne yow ko def ndax xam naa ne bëgg ba gëmee woo ma. ma ne ko Aliou yow kon yaa ngi nax sa bopp mu ne kon baax yow doo fi ñëw mu daal di dee daal nopp daal di coupé téléphone ma daal di ñëw ba ci buntu kër gi xam nga su ma yemoon ci moom du ma dugg ci kër gi ba ma yem ci ma daal di ñëw ba ci buntu kër gi ma daal di taxaw ma daal di benn am benn waay joo xam ne xam nga foo këru logement la lii après ma daal dugg ñu fekk benn borom jakataa muy dugg borom jakataa bi doog wàcc ma ne ko man de nday laay ma nday ma ma ne ko nday njaay parce que Aliou waxoon na ma nday njaay la tudd léegi ma daal dugg ne salaamaaleykum ana nday parce que jour dimanche la woon bi ma duggee ndaw si daal ne ma après waa ji ne ma yegg si nday ngi ci biir ma dugg rek suus rek ma dugg rek dox tuuti ci biir couloir bi daal ko fekk fo mu tax man ko ça va soxna man ko day laay mu ne maa ngi nii man na nga def man ko maa ngi man ça ma yegg si ci biir ñu waxtaan ndax ma mu ñëw ñu dugg man dama dugg ci néeg bi wokk bi rek Aliou Sène ma la tëbaat foofu ba ci kaw mu toog ci kaw la du xulli bët yi ma daal xool ma daal di ree foofu mu xool ma après rakk ji ji la génne ci néeg bi Amadou parce que kay te présenté na ma rakkam après mu daa ma fekk foofu may nuyu ne ma xarit na nga def mu ne ko ça va mu ma mu ne foo jëm sax mu ne ko yow mu ne ko yow amaa ngi benn affaire ndey laa amal affaire lan la yéen loolu ma toppee nii am foo jëm looy def nii mu ne ko li may def day dañ leen ump aba ma ne ndey mu ko soxna si ma nuyonte ak moom ñu jàmm sant foofu mu ne ko man de da ma ñëwoon soxna si wax la dëgg parce que mbir mi ngi xew te mbir mi comme que kenn waralu ko ku dul man te man damaa jóge suñu kër tàggu sama yaay ak sama papa ñëw fii liggéey te am na loo xamante ni tey jii sama waaju mën nañ ma koo bañ a fooge ëllëg ma dugg seen coono lay doon sama coono lay doon te bëgguma ngeen rayante fekk man maa ko waral mais soxna si nday daan ne ma yow lan la yow soxna si loolu lu mu doon ba naa naan affaire rayante man ko man de Aliou fan yëpp daf woo ne ma yow da ngeen di xuloo ma ne ko keroog sax mën nga xooloon téléphone fan yële te man la woon maa ngi cana ba man maa la waxoon sa jëkkër daf ma yóbbu rek abonnement laa ci moom mun ma ah, léegi lu doon say tànk mu ne ko dama laa ñëw pour wax la dëgg gi ndax leen lu nekk da nga koy natt sa bopp ma ne ko Aliou mii ma ah ne ko keroog def naa loo xam ne ma ne ko musuma ko def parce que dama def ko ma ne ko dama ko def pour bëggoon seen problème fay ci guddi googu mais def dama waxuma ko pour cadre dama faral alal ndax boo fi gaañantee dinaa ci am bàkkaar parce que man maa koy waral parce que yow yaa say appel danga gis sa appel appel yu bëri sama appel yu bëri sa téléphone jëkkër gis tamit sa jëkkër di ma woo lu bëree bëri léegi mu daan ne ma léegi la kon lan la lu xew ma ne ko sa jëkkër maa moom dañ doon génn mu ne ma ah ma ne ko mu ne ma ah man doon génn te comme que nag maa war a problème man ko dama bëgg ngeen bàyyi problème bi te ngeen dund seen dund yéen ñaar te dama bëgg Aliou mii ma ko mi ngi nii toog ma ne ko dama bëgg mu bama ci la Aliou jugee gëttam ma foofu ne ma da ngay génn kër gi waaye da nga ñëw pour tas sama kër ma ne ko tasuma sa kër dama bëgg nga bama nga nekk sa jaba ci jàmm ndax moom nga takk parce que ma mën naa dem xooli leneen waaye moom da nga ko takk te bëgguma seen waaw ah waaw xale bu jigéen jabar ji deful dara moom def na ma rek maa ngi lay remercier ci li nga def dama yow li nga def de du raar la parce que mënu nga ko noppiwaale man ko du ma ko noppiwaale parce que kii mu ne après jabar ji ne jabar ji ne fa di ko gëtt ma naa ko yow mu ne ko waaw yow toujours mu ne ko chaque à chaque fois bu ma jéemee fen wala jéem maa wax lu dul dëgg yàgg-yàgg tôt ou tard da ngay feeñ yow nee naa la nga ba doxaan parce que yow doxaan jigu la parce que saa boo doxaanee di nga feeñ foofu noonu fekk su boobu xamante naa Saint Valentin mu joxoon ma benn fleur même fleur ñaari fleur am mu jox benn bi jabaram ak benn yëre boo xam ne daf na woon sama benn kër gi mënoon liggéey kooku mënoon jaay ay fëgg jaay ay kiloor ay pànc ak benn lakkoosu mu ne naa ko ko jëndee boobu lay jël si yëre parce que bi mu xuloo dama téye yëre bi ko jës ma boole leen ma ko ci benn sachet ma yóbbu ko ba jabaram jabar la ma ne ko nag mi ngi nii ma ne ko nag boo leen di am leen ko seen biir mais damay bañ ngeen gaañante ngir sama jëmm ji parce que nit ki nag looy def di nëbbatu yàgg-yàgg dina feeñ ma ko yaa ngi nii toog ma ne ko sañ bari ngi toog mu gëta mu ne ma moo rakam ñu ne ma génnal kër gi ma taal foofu kay ne ma di nga xam ne mën nga ko séqal yow moom bu soobee xaw ma kan mooy fekke ji dund mais dootoo ko fekketi ne ko ale lu dul yàlla nen la xaw ma luñ la boote mais yow tamit xamoo lan nañ ma boote léegi nag biñ defee loolu ma dem ñibbi ma xëy lu ma xëy rek su ay boori 10 heures jabaram wooma jabar man xaw ma fu mu jëlee sama loxo téléphone jëkkër ko jëlee xaw ma ma soxna si naa def saa mu ne ma yaa fi ñëwoon ko li na def ko ma ne ko waaye ko man de def naa sama xarit sama xarit ne ma ba nga demee da nga ko waroon a da nga war na jabaram daf la amel bor muy mënu waru wax ni da ngeen di génn ndax loolu xarit danger la mi nga def dafa dafa nekk lu garaaw ne ko waaye lu mu man moo gën man sama sama sama der laay ragg du ma toog bañ gaañante après jabaran ne ma xanaa xanaa bi ngeen di génn wax na la lay takk ma ne ko waaw mu ne ma lem na la xaalis ma ne ko waaw mu ne ma est-ce que wax na la ni am na jabar guinéen booba xam nga kon waajee waxoon na ma loolu ma ne ko waaw leb na ma fi xaalis damay jotu ma ko lebal mu ne ma gis naa ko ci yàlla barki Serigne Touba boo ko ko lebaloon nag. jigéen bu mu nekkal. Euh, day ñëw leb la xaalis wax la yaayam dafa feebar. voilà yooyu voilà xam nga kenn ku ne xëy na man loolu man xëy na version boobu la ci man mais ñeneen li muy ci ñeneen yi man loolu kiiwu ma mais nag après ci la ma waxee ni leb na la xaalis wax na la lay takk parce que tàmm na xale bu jigéen muy bëggante loolu mu ne ma kii waaw mu ne ma kii de seexlu sax sama rakk ñoo bokkal ndey ak baay ma ne ko ah mu ne ma ah jabaram non maa ngi ñëw mais xam nga comme que ñoom ñaar xam nga parce que nit ñi dañuy wax naan yow jigéen ñi parce que nit ki ci yow jàmm daanaka loo ko gën a respecté yow ñi nga xam ne ñu lay wulli guddeeg bëccëg ci ñooñu ngay dugg xëy na nag moom moo xam li ko bàyyi ci Aliou man xaw ma ko parce que moom gannaaw xam na loolu mu dikk mu ne ma kii sax man day wax na ma ne ma man de kii de xaw ma sax lu ma dugal ci moom parce que en yooyu mën nañ leen liggéey ba nga toppalante doo ko tey xam nga day am parce que nit ki des fois nga gis ne mu topp koo xamante ni du koy chaque jour ak fitna ba ko ba parce que lam lam ko def la. léegi yéen ñaar bi ngeen xëyee loolu am après ci ngeen bàyyante. man man bi ñu bàyyantee laa toog ay diir ma dégg parce que kaa bi xew mbuur man. fi ci guddi googu ngeen bàyyante. ci lañ bàyyante. après nga dem yow ci nga ñibbisi fii wala. non non man fa nekk continuer Thiès te daan naa ko gis Thiès mi dawal ay moto parce que moom dafa ma tëkkoon ay jamono dama yow di nga xam ne mën nga ko seqal parce que suba bi ñu daanante si suba gi jabar bi ma woo pare jabaram waaw jabar jabaram leeral action yëpp jabar bi sax moom moytu parce que man du ko moytu parce que man police am na Cees yaa ngi dégg parce que man bi ñu defee loolu man fii laa fii laa déggee cas bi xew Mbour fii laa ko déggee fii Touba waaw man bi ma ñibbisee non jotu moom def dara xëy na feebar naa sax bi ma feebaree xëy na maa ngi parce que bi ma déggee ne armo bi mbàkk fii la ko jëndee man dama tiit ma ne xëy na mën na doon wër si parce que tëkku woon na ma ma keroog sama rakk bi wàccee sax marché bi ñu mën a ko xëy na mën a ko xëy na jiyee ji def jiyee ji am mbuur dégg ngeen ko man bi ma waxee sax suñu waa ne xam naa ko gëmuñu ko parce que li muy dal sama moromu jigéen dafa bëri te man li li tax ma ñëw fi ma woo leen dama bëgg ñu bëri ñu moytu parce que étranger dëgg la dañoo dangereux en général li ñuy wax dëddu dëgg man bu ma déggee jéey ji mbur barke Seydina Mouhamed Aliou dem na ba wax ma ne ci gémmiñam mu ne wujj yaay moo ko liggéey mënta taxe mu am dara ma ko Aliou loolu bu ko def sa bopp ndax boo liggéey fi am fi ñaari moto kon yow nit ki bu ko ma ne ko buñ la liggéeyoon dëggantaan ma ne ko da ngay dof waaw ma ne ko da dof wala dara mais da ngaa sa bëgg-bëgg parce que da jaay taar nga te jaay taar en général moo lay wax lu dul dëgg mooy def loo xamante ni fuñ ko dégg ñu daal seen gémmiñ ma ne ko. arme arme bi mu rayee waay waa jooju nekk Mbour fii la ko jëndee mbaake man na dama ko dégg rek ci rajo bi loolu ma exactement amu ci lu ma leer. mi ci rajo ñaaw na parce que tëkku woon na la yaakaaroon nga ni yow la doon woon. waaw tëkku woon na ma mais man parce que man bu ma bi ma tëkku ma nekk naa ak diir Thiès. toromb na ma 11 jours ba maa ngi liggéey feneen maa ngi ngi liggéey fële ISEP ISEP jasab bi nekk benn restu bi nekk Mbour. ba benn non benn restu bu nekk Thiès. maa ngi fa liggéey mais romb na ma 11 ma di ko woo mais amul fitu sax di ma jege ndax xam na xam naa yaa ngi dégg léegi xam nga amul fi du man dama jege parce que xam na tey li ma xam li parce que yor naa information te bu ma ko yóbboon police dinaa am lu wóor lu ma teg ci loxo police ne fii ak fii lañ jaar yaa ngi dégg xëy na looloo tax benn jour mu romb ma ne ko hee kii rek mu taal mu te mu daw mu romb ma man ma kon ne waaw après waaw waaw waaw bi ma déggee ni jënd na loolu parce que man dama déglu fii rajo mbir mi samedi la xew léegi nag man ci samedi bi sax bi ma samedi dégg man samedi ci guddi laa jàpp benn rajo bu ne fii Mbàkke ma déglu ñooñu def benn benn thème de la semaine ma déglu ko ñu daal ne am na benn waay bu dugg mbuur ray fi ay nit dugg fi ma ne ah ma daay fee di yàgg rek lañ mën a teg xam ma toxal fa ma jàll ci beneen rajo si ma tox bi ma fa ma dem ci beneen rajo li après ma daal déglu déglu foofu ñu daal di wax wax expliqué ma ne ma ne ah ma ne kii de xëy na du ma ko yaakaar mu ne xëy na moom de garaawul mu ko naa bàyyi ba suba suba la suba la dimanche ma xëy ma taaroo ji dimanche xam nga dimanche de presse du am journal rek la ñuy def ñu daal journal ñu a wax a wax loolu tamit taxul ma gindeeku ma ne garaaw ma tëdd fii 11 ma sama yaram bi mel ne dafa diis gan la ma ne waaw doon ma sama maam mi toog fa ma ko maam maa ngi tëdd fii ba timis passé nga ma jur ma dem sangu ji léegi mu tëdd ma la ba sama yaay wàcc ñu dagg xaar ñu woo ma ma jug ma tëdd ci suba sama xëy muy lëndi ma xëy jàpp rajo dégg mantulaay ne dañuy ñëw ci kaabi xew Mbour boobu avant loolu dégg naa revue de presse bi ma déglu ko waa waa ji nga xamante ne moo doon kii ñu ne ñoom ci benn site lañ ko jëlee pour ñu site boobu moo leen envoyé information pour ñu tegaat ko ci rajo bi mu wax léegi après ñu defee loolu mantulaay daal di expliqué kaay waa ji waa ji waa ji fekkoon xew-xew expliqué nu mu mel ci laa jugee yuuxu fii ne kii xam naa ko kii Aliou la ma ne ko lii bettuma ci moom ma ne ko nag amu yaakaaruma ne am na fitu def ko yaakaaruma ko mais xam naa ni moom am na fitu moom man man foogee ma ko ko woon sax mën a wax mais xam naa ne am na fitu rey nit parce que man fi mu jaar ak man yëpp barke alxuraan bu fekkoon ne nangu woon naa yëkkati xaalis wala ma sobsolu ba àbb samay mbokk ala joxle te ji man dina ma rëcc foofu man ma dem tëddi kaso léegi nag bi ñu defee loolu ma daal di ma di kon ne déglu information ci laa dem jël sama téléphone rakk mu jënd ci mu daal ci sama sama rakk ji wàcc ci guddi maa bu ko ma dugg ci youtube ma xool ma gis même saa téléphone baa ngi ne sax ci laay gisee lii bi ma gis image yeeg yëpp ma daan ni kii Aliou la ñu wax après Cheikh Anta Diop bi nekk Thiès RFM daal dem mu daal def foofu reportage ci bi mu doon taxaw ma dégg ñuy wax ma ne Aliou la ma ne ko lii bettu ci moom parce que tamit nit ki nit li ñuy wax rek nit lu ak lu mën a xew da ngay ànd sa xel xaalis jëru yenn yi ala jëru leen ndax foofu noonu fekkoon dafa demoon rek jub rek moo ko fa yóbbuwoon mbuur nag dama bëgg a xamal ñi nga xam ne ñoo fa dëgg Aliou ku xam mbuur la. tey bu ñu demoon ca marché central man moo ma ko wax nag mosuma ko fekk mbuur xaw ma ban côté la dëkkoon ci mbuur mais li tax muy dem mbuur xam na mbuur te tey boo leen demoon jabar jabar leen xam na mbuur. benn may wax daal ca police mu nekk nañ ko gën a surveiller ci mu ñu gën a bàyyi xel ci moom ndax dèjà ku xool image mu ngi teg la tànk mel ni kooku nag damay wax te yàlla rek tax yéen mu ko kaso nag mais xëy na li mu def dafa ñaatu ku ko def nag li yelloog moom dañ la war a lay parce que ku rey ni dañ la war a rey waaye nag bàyyi xel parce que fii Sénégal nit dafay rey nit ba pare ñu kon ne di la ñaanal pour intervention pour noo génne wala ay nit wëlbatiwaat di def ay ñaan pour génne la fa yaa ngi dégg te li mu def bakkan du ay foow te man Aliou parce que alxuraan mi toogoon nii ma toog dama ko am nga fi du rey parce que yow yow fi nga jaar ak man yëpp su ma nangoon tey ji man tey jii ndax tëj rey nit rek bokk na ci nga tey nit kaso koo xamante ni parce que mooy parce que mooy lépp ci ay waajuram parce que lu bëri loolu rek bokk na ci nga rey loolu rey nit la may wax ne nag nañ ko gën a surveiller foofu mu nekk te ñu xam ne tëj nañ ko dëgër bopp tëj nañ ko woowle ndax nit ki bu bu jaaree kaso benn yoon man jàpp naa kaso bu nekkee ci yow natt nga jaar fa benn yoon war ngaa sàmmanteeg la la fa defoon barke alxuraan boo génn da ngaa war a jaayante bu foofu la la fay dugalaat bu mu nekk ay caaxaan. non déggan parce que soxnaam déggantuma moom parce que soxnaam soxnaam depuis këram mu ko déggoon ba problème bi amee ba ci ëllëg sa ba ma demee këram ba ci ëllëg sa ba ma woowee parce que Cheikh Khalifa boobu lañ gëj a déggante man ak moom boobu lañ gëj a déggante déggaatuma ko benn yoon parce que boobu man yëpp rek lu tax mu jug def yooy dama bëggoon parce que man bu toon damay sant nag sama xarit bi nga xamante ni ki ma fekkoon ci place ba ñu bokk moom moo ma ci a jël samay sama pièce carte d'identité déposé ko ci mu wut ci kayitu ko amoon tey ji naa ne jiyee bu mu dugg naa te tey ji bu yàlla defoon tey tudd sama diggante moom seen ndax dem naa présenté ko sama jabaru nijaay indi naa ko ci kër ga pour mu waxtaan ko kooku ko gisee daan ma moytul kii kii bëtam yi bëtu bandi la yore ma ne ko waa baax na mais boobu lépp. nekkul mbëggeel rek moo taxoon nga topp ko parce que ku nekk nee na la nga bàyyi ko nga bëgg ko dëgg la problème téléphone am na loolu dinañ ko comprendre mais téléphone du tax nga topp nit ki mu continuer di la wax lu dëgg mais bëggoon nga ko bu dee dëgg rek moo ne. non waa xam nga xam nga bëggoon naa ko ngir lenn bëggoon naa ko changer ci vie bu mu nekk parce que tamit man bi ma waxee premier bi ñu toogee mu ne ma bi ñu toogee keroog mu ne ma dama dugg kaso nekkoon na parce que duma ma nëbb wax naa ko jabaram ma ne ko Aliou dëgg neex yàlla bëggoon naa ko mais nag sama yaay daf ma wax naan nit moom ànd la ku nekk mais nit ko xam ne fenkat la tôt ou tard kooku boo jeexee ba ci biir warkat lay doon ma ne ko nag waaye bëggoon naa ko lool du ma nëbb sama dëgg ku ko bëggoon laa mais nag bi ba kaay ba ma xam ne nag mbëggeel jarul yenn yi. <laughs> non métti ma parce que bi ma ko fi bàyyee lu bari am na am na yeneen ñu ma nekkalaat nekk naa fi ay nit te romb moom su ma ko bëggoon damay topp Cees di ko daw di topp ci ginnaawam di daw mais tamit li mu def dafa ñaaw ndax nit nit nit nit nit ko ànd sa xel ali xaw ma ko tux xamee ma ko naan ba tax mu jël arme dem yore ay faux billets dem di ko wecceeku nga wecc ñu xool ko muy faux billet nga génn ñu ne li ma jox faux billet la tirim lacc nga génn sa arme di di tiir ay nit ay bal lool du yoon. bu ko sama mag defoon tey ji ma xam ci moom sikk bi dama koy wax. ba muy nekk ak yow xamee nga ko wax dëgg yàlla mosuma ko xam ba deux mille yi dix mille francs yi ma njëkk a may suñu place bi ma ko xoolee du phobie wax dëgg li ma la man xamee ma ko maanaam xamee ma ko ay phobie xamee ma ko tamit. bi nga déggee moo tax mu tiiree borom hmm. na ma kaw trop. mu nekk nag loo xam ne bari laaxee te nu may tëdd fi suñu yaakaar dañuy demoon sax ma ne man yàlla bu di fu ma ko génnewu sama xol bi damay ragal ëllëg muy ni ma beneen jéeye parce que maa ngi dem rek mais demuma ak sama xel parce que mbir moo métti la man tëj bi ñu ko tëj na parce que hangar boobu ñu ko toppoon foofu rek bu ñu ko jotoon gëm naa ne moom waxuma dara mais du ko fekk. te mën naa waat ci yàlla sama téléphone ba léegi may wax ak yow fi ma dem yëpp dañ naa ma ki ko këf ki jël sa téléphone yéen a àndoon am naa ci information bu ma leer te kooku lu ma wax gis naa ko mu ma ki këf sa téléphone mu naa mun ne yéen a àndoon. mu ne ko ah mu ne ma mu ne ku ko ku ko këf ma ne ko kooku nan la ko mën a këfee ba gi ma ko mujjee ma ne ko kooku mënu ko këf ndax nit ki mën nañu ànd mu këf sama téléphone ma di ko seetaan su ko këfoon daa ko jot ci kaw moto bi ñun ma daal ah, ku ko këf daal xam nga ko xam na la ma xam ne nag comme que nag jiru bàyyante na dima ci topp di daw ba mu def mu jéyee wala dara ma bàyyi loolu mu sedd déglu nañ kàddu yeeg information yi lan rek ngay tàggatoowee ku ñëw ba mbuur moom jënd arme xam naa këf sa téléphone bu la gisoon tey doo ko fekkee <laughs> waaw waaw wax naa ko su wax naa ko suma rakk bi ma ni ko su ma gisoon xam naa ne yéen moom leneen ngeen di wax mais doo leen ma tal ndax xam naa ne bi ma ko déggee man dama bu arme bi ci rajo dañ ne ma ko fii da ko sàcc foofu foofu noonu ca Thiès loolu mu dégg naa ko ci wax ko ci benn information Mouhamed Ndiaye mu revue de presse wax ko benn message mu bëgg a laaj rek bu ndaw rek nga may ma ko ngir yàlla non foofu nag laa bëgg a ñëw ci xam ne parce ñun dèjà suñu amul lu ñu gënal duñ génn fi di fi ba suñu ndey ak su suñu baay dem di liggéey du ñu amul lu ñu gënal ndax tey ji kenn ñaanu yàlla ngay dem di génn fii dem di di di nekk ci kër kenn dafa di di defa di liggéeyal wala dara ko soñoon tey da ngay ne seen kër di xëy di wàcc di gis sa papa di gis sa yaay di gis say rakk di gis say mag mais dañoo amul daal lu ñu gën a moo tax ñu génn di liggéey may wax sama moromu jigéen yi nga xam dañuy génn dem di daani seen doole ñu bàyyi xel souvent étranger yooyu ngay gis barke alxuraani karim boo leen toppee ba ci biir mu nekk Guinée mu nekk beneen xeet dañuy am jabar seen dëkk. parce que man loolu dana ma am na ko fi ñëwoon di ma ñaan ci fii ja soxna mais man a takk ki ko fi indoon ñoom ñaar ñëpp laa boole toroxal. lan moo tax Guinée yi sonal la yow. parce que man Guinéen la. Ah, man sama man Guinéen laa suñu kër fi ñëpp ñun ñëpp ay lakkal lañ sama maam mi toog malien la sama yaay pël Fuuta la sama papa pël Guinée Bissau loolu ba ma waxee loolu dama xam ne kii man xam naa xame ngi dégg mais li may wax rek ñu gën a bàyyi xel loolu ñu gën a jàppale ndaw ñu képp ku génn nga xam ne liggéey moo la yóbbu nga liggéey bëgg a jëru yenn yi topp ci benn nit boo xamante mën na laa jural loo xamante boo liggéey parce que man mi tey bu doon sama xarit boobu lu nekk mën na ma ci fekk te tey jii man daal li may wax daal mooy yoon na ci def lépp lu mu man Aliou nañ ko gën a surveiller barke alxuraani karim duñ topp ay dossier ba ci biir man nag xawmul tax waa ne ko la fa defoon li nga nekkoon mu njëkk li nga nekkoon mu njëkk li nga nekk moo ko gën xaw ma ko ndax topp mu information xam lan la woon li ma wax rek laa mën a gëm mais nañ ko surveiller bu xam ne ay bakkan la te barke alxuraan nga dégg naa ji moom nañ waa kër gam nekkaloon ñëpp parce que moom fi mu dëkk ak sama kër nijaay motul sax un kilomètre kon xam nga ni kooku xam na mais li may wax daal ñu gën ko surveiller ñu gën a jàppale xale yi xale yi jigéen ñi dem di liggéeyaan ci dëkk yi ñu am fulla am fayda ku nekk nga xam ne liggéey moo la tax a jóg soo gisee ku la bëgg bu ko nëbb say parents parce que mag fa muy toog di gis xale yëgu fa bay gis yaa parce que man tey bu fekkee ne ma toppoon sama bëgg-bëgg rek mën naa wax ni tey ji maa ngi ci beneen jée parce que bi ma déggee fi la jëndee pistole barke ndax dama na maay jamono mais comme que reyewu ci jàpp naa ne bu ñëw fi Touba fii xanaa bala maa rey suñu waa kër xanaa ñëpp lay boole reyaale wo may wax daal ñu gën ñoo jàppale ci loolu buñ mënee am fii si dëkk bi foo xamante ne benn usine la boo xam mën nañ fee toog ñu liggéey fii ci Touba ñu toog fi parents yi tamit ñu gën a surveiller xale ay Dakar ay Thiès dem fa di liggéey tase ak benn trompeur bu mag mu nax leen jaar kaw jàll ñu dikk fii di leen soow fekk nit ki loo xel xel xel daje ku la xel parce que man bu doon sama xarit ba parce que xuloo naa fi sama patron ndax jëmmi àll jooju tax alxuraan ndax mbëggeel xuloo naa ceeg moom problème yu bëri nañ ko mën a moon te kooku wax ba ko mën a yàq xëy na tey li ñuy wax ni du sama dëgër bopp nag moo tax ma toppoon ci kawam di daw déedéet. waaw soo bëggee da ngay gumba taxlu mais damay wax ñi nga xam ne dañoo ne ci àll di génn di dem di gis seen dëkk dem di ay feeri liggéey ñu bàyyi xel ni étranger yi ñëpp daanaka xaaj bi am na ñu fi nekk ñoo xam ne soxla duñ yàq kenn amuñu ci kenn soxla seen liggéey buñ liggéey li ñuy delluwaat seen dëkk mais ñu ci ëpp bu ñu ñëwee fii dañuy bàyyi seen jabar Guinée fii di la gëmloo ne oma jabar fekk am nañ jabar na xale jigéen moytu parce que tey nday nday li tax amul fitu génn toog jàkkaaroo caméra di wax dafa neexu ci xool nit ju takk la mi nga dégg ne mu def beneen jiyee nga dimbali ko moom génn mu ñëw defaat la gën a pire rey ay nit tiire parce que tey ji ña dee ñoom moom dee nañ mais nag ñi nga xamante ne moom la gaañ ñooñu fan tey fan la ñuy mujjee ba pexe bu ne am na ko parce que tey mën na nekk mën na génnaat ci kaso bi génn def parce que li mu def ba fële ñu génne ko mu ñëwaat di liggéeyal mën na def lu ko war may wax ne leen xumul ay peine ray mu ñu war a def wut teenu gisul bu baax teg ko Dakar defal ko mbarka mu gën baax ku rey ni dañu jàpp la tëmbal la foofu suñ ko defoon ñaari yoon ñetti yoon barke seexul xalifa nit ñi da leen bàyyi rey nit parce li ñuy def du dëgg du yoon fekk nit kuy liggéey nga rey ko loolu jekkul rafetul parce que li mu def dafa ñaaw dafa ñaaw man dama ne fu ma jaar tuutaa dinaa wax naa wax lu ma ci fekk ma jël ko mais li mu def dafa ñaaw dafa ñaaw te aliw dafa dëgër bopp wallahi azim li ma lay wax nii tey bu ma la yebaloon ci bu ma wax ne man mën na faal nga laaj ci jabaram jabaram tax génnul wax dafa xam ne rek su waxee rek tey dama bëggoon ma li ma gënoon jabaram na génn wax ma masawu ñi nga xam ne ñoom la rey baalu leen àq parce que du dara mu génne ne a ah, man ka sama borom kër la maa ngi leen di baalu xëy na dina métti parce que loolu gàcce la tey bu génnoon wax dañu kii nan la mën a sëy góor gu boot gi te moom lépp lu ma wax ci ali moom ma ko gën a xam ndax moom dund naa ak moom. waaw la am ma amintanu Dakar Buzz TV di leen leen indi indiloon tey dégg ngeen kàddu yi nga xam ne Khady Ba daal dina koy yëkkati ci kooku nga xam ne rek defoon na njombe boobu fële ca Mbour ñu koy wax Aliou kuyaate mu daal di faatoon ay nit fële ca Mbour ci semaine yële rek ñu génn moom na copinam la woon dégg ngeen leeral li nga xam ne indi na ko ci jëmm jooju di Aliou di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah ci beneen ka merci beaucoup.